thank you la première fois bi ñu defee la nuit di Sine Saloum sama rek Ousmane Noël Dieng ñëw na jënd ay billets jox ko askan wi ndax nit doo sul suul jëf deuxième fois bi bi ñu koy defee madame la maire de Kaolack Mariama Sarr ñëw na jënd ay billets mais xam nga événement ay billets yoru ko ñëw nañ jënd ay billets très sérieusement te moom madame la maire pare na def partenariat ak jëre studio ak jëre jëre TV donc biñ mujjee gisante mais xam nga événement loolu yoru ko événement soo xoolee orchestre yi ñëw nga xool sonorisation nga xool aussi pour man nit soo koy jàppale il faut nga teel a jóg je pense que loolu c'est important waaw donc parce que ñun ñu ngi def loo xam ne ne que maanaam financièrement yéen a ma gën a xam li ci événementiel parce que yéen ñëpp mënuñoo naxante parce que yéen ñëpp ci loolu ngeen dëkk mais nag dañoo gëm Kaolack dañoo bëgg Kaolack parce que Kaolack laa dëkk fa laa juddoo fa laa màggee fa laa yaroo ndax suñu bàyyi alaaji Ali Guèye Seck ak sama bàyyi yémma góor Seck ji Maseer Mbaye alaaji Ibba Samb ak ñi fa wër Omar Thiam culture Kaolack la fekk baax xam nga kaw Kaolack dafa am lenn loo xam ne ci ngoyaan ak ci leneen ak leneen ak siin ak saalum dafa nekk loo xam ne ne que il faut gars yi jox ñu suñu gëdd te buur jot na aussi ñun gars yi nañ ñu dimbale il faut pas ñu raay ko dañuy gis dañuy jël ay kër ay millions yu dul jeex di ko may les artistes ñi nekk Dakar ñun jàppalewuñ ñu parce que il faut qu'on se la vérité ñun dañoo war a jàppale dañoo def ci réew mi loo xam ne kenn dootu ko dindi waaw ñun luy génn album ak luy génn sunu loxo da ciy ne rawatina man si c'est cent album la quatre vingt koy def dama bokk nag ci vidéo parce que li ñuy gis ci vidéo clip peut-être que loolu la ñu yaakaar loolu la mais mën naa tëgg album te du ma bokk ci vidéo ñuy xool kenn kuy tëgg sabar ñu teg ko ci kaw tele bi mu teg ne def def vidéo bi donc mais ñun dañoo bokk ci réew mi dañoo dëkk ci réew mi amuñu droit nag def erreur du ñu tux cigarette du ñu naan sàngara am nañ fulla am nañ fayda te fi ñu xam nañ suñu bopp xam nañ askan wi ñu judd juddoo ban askan la donc je pense que ne ne que jàppale aussi tamit de force te nit peut li nga sentir rek ngay mën a def donc maa ngi tàllalaat loxo aussi tamit askan wi Kaolack askan wi sama waxu démb rek mooy sama waxu tey projet bii li ko waral loolu la parce que man su dee man ak man la mën naa toog sama ruq sant yàlla wut sama soom bi sax di ko naan mais askan wi Kaolack da daf ma ñor trop trop trop trop li des ci sama carrière événement bii ñuy def nii bi waroon am suba moom laa doon sargal dama njëkkee ci Farba Ngom parce que xar mi ma njëkk a jëndal sama yaay maa ngi ko àndoon ak Baaba Maal dem Fuuta temps yi may jàppale Baaba Maal di ko di dagale ay 2000 francs 2500 mais dëkk ba mu dëkk bi ma fa Baaba Maal yóbboo falaa njëkkee jëndal sama yaay xaru tabaski ba léegi yàlla di ma ko mën loolu ministre de la culture aussi pourquoi dem nañ fa ñoom ñëpp amul ku ñu seetiwut mais boobu ba léegi kenn recevoir ñu kenn waxul lenn kenn waxuñu dara mais dañuy toog rek xool na ne xam na ne que ñoom seen choix la mais du trait aussi ñun li ñu war a def donc ñu ngi koy def donc de toute façon ce qui est important suñuy kilifa lañ dañuy nekk ci seen gannaaw par respect di leen tàllal loxo suñ ci jàppee baax na suñ ci jàppul tamit ñu xam ne ne que seen xel foofu la toll. su may bët lépp dama ko teg ci taalibe buur sama yaay vingt cinq kilos la doon sóor sama biir kër bàyyi par jour te sama bàyyi amul woon dañoo amoon benn nënd mu tudd dégg daw lañ doon wooyee añ nga dégg nënd mu tudd dégg daw lañ doon wooyee lekk Alaaji Ali Guèye Seck sama bàyyi dafa tëgg bañ may ko nit donc peut-être que nag xam nga àdduna day dem ba benn moment boo xam ne gars yi dañuy gëm rek biir wi lu amul biir wi rek pour ñun bokkoo mais li man suñu famille lan moo fi génn te bokkuñ tëgguñ ko donc kon am na lu ñu représenté ci sa mais Sénégal ñoo bëgg il faut nga nekk gars yi tiim la nga naan lii laa laa xam nga donc c'est Sénégal mais quand nit ku ci nekk li mu liggéey ci réew mais nañ ko ko nangul dañoo gëm suñu réew rek ak bañ a tàllal loxo ak bañ ku ñu rejeté mais mënatuñu sérieusement parce que ñii su may nawle lañ xam nañ maay kan ñoom ñoom xam nañ sama talent moo tax ñu bu jógee seen i réew ñëw fi man aussi man nangul leen ñoom li ñu man donc je pense que ne ne que affaire bi metti na ñi ñu war a jàppale nañ ñu jàppale man kenn musuma dégg ma ne nañ kenn musuma dégg ci yi ay nañ ñu jàppale parce que toujours rek damay dem ak sama xol parce que rus naa sax ñëw ci yow buur géwél wax la leen nga rejeté ma donc je pense que ne ne que lépp dañ koy def ci dal ak yar ak teggin donc di tàll suñu njiiti réew président donc di ko wax ne que li am ni moom la xam nga buur euh, gars yi dañuy wax leen léeg ñu ne président dama nekk Allemagne euh, ñu naan président jox nañ ay milliards ma ñibbisi dem BCA billaay barki Serigne tubaar rek laa yaakaar bi ñu génnee cent vingt cinq six mille francs joxe ko fayul sax samay bonu kër falaa gis ñu ay musiciens yoo xam ne ne que gënuma leen ci ndey gënuma leen ci baay du ma tudd sax tur fan ma ko joxee laa ko defee àddiyee Serigne Touba parce que xam naa ne que métti na mais buur cent vingt six six mille francs lu mu ñu mënal nañ waxante dëgg on se dit la vérité. noo doon doon nañu trois milliards. non trois milliards yaa dégg trois milliards deux milliards cinq cent la ñu wax donc deux milliards cinq cent te lañ joxee moo ko. mais suñ la joxee cent vingt six mille francs donc kon keneen keneen ku nekk ñaata ngay am ah donc man pour man là c'est pas important parce que nit ku ci nekk li ngay liggéey rek ci nga mën a teral sa bopp li am solo mooy ñun ay liggéeykat lañ donc mënuñoo xëccoo ak sunu njiiti réew ndax mooy suñu kilifa yàlla moom la fi teg ah donc kii fi yàlla teg da ngay ànd ak moom donc dama koy wax man juste par rapport que ci projet bi ma taxawal métti na donc kon moom mooy de trois jours moom moo génn def déclaration damay respecté moom kilifa gi ko yàlla jox ak li nga xam ne ne que réew mi ñoo ko bokk di ko tàllal loxo yi di ko wax ne ko mu jàppale ma ndax am naa ay gan yu fi ne te ça fait on a bokku beaucoup d'argent ci projet bi pour mu nekk